jabaru jàmbur nga dama nopp ma ne ko ndekete danga dof du ma jëkkër nga may tàll cuuraay yamal nga réglé sa jamono nee na kontaan na forme yi rafet na xamal na ma bëgg na tërën na ma 500000 ne dama ni rox doomam nekk jën dama lay jéem mais ñàkku ma fayda comme sigalo solution dama laaj ko abu ci bolo bu nga nopp te doon ko sa loxo miiri wis léegi sa ma daw mu gaaw jàppal si sa bi nga mu dëgër ba demee ba def dara xoolal bul fàtte doom dafa jiitaro yaa ji ba xoolal si bul topp nag sa jikko tasal sa utaw jëkkër sa ga mënoo bu fekkee sa waa ji dafa bu baax li charia dalay faat li nga bëgg a def gën a lu ma conseil bi mooy na nga yem sa sëy bu bakkan yàq sa àdduna tànta koy naan di nëbb su man defee rafet nga toral te jongoma nooru nga ku baax du ma la jaay boo xësee xaawi sa sutura man nga fa jaare am booy bu dul ma sa faay jabaru jàmb na dama na ma ne ko ndekete da nga daw du ma sa jëkkër nga may tala cuuraay yamal nga rek la sa jamono jabaru jàmb na dama na ma ne ko ndekete sa e e jëkkër nga mooy taala cuuraay yaa mën nga régler sa jamono jabaru jàmb na dama nopp jabaru jàmb na dama nopp jabaru jàmb na dama nopp maa ne ko nekk te teg dof jabaru jàmb na dama nopp jabaru jàmb na dama nopp jabaru jàmb na dama nopp maa ne ko nekk te teg dof jabaru jàmb na dama nopp mais maa ne ko nekk te teg dof du ma sa jëkkër nga mooy taala cuuraay yaa mën nga régler sa jamono man nga te xamoon ne wóorowul firil sa bopp bi te tagoo sa collecteur benn mission moo la dese ma caaxaan ak di càkkaay ba sa jëkkër léegi ñëw waay yam si sama pagaay parce que boobaa nag du maslaa nga si gàcceeg ni la yedd ba si say doom da lay faf ba dégg baakaar jóge Dakar dal di gàddaay taxu gànjaay nga jaare fi ma doo ma gisaat sànq sa avenue doom du ko fi jar dëgg la naxaru xolta di ci dara ñu la la ñuy bés bu ñuy xisaab ni taal nga cuuraay takk nga fër sa ndigg dox di wit ñoo di jënga dose ma may nga ma xaalis yóbbu nga fon ne ma foose la léegi nag fon nga na safuma looy wax sa jëkkër bu njibbisee xale bu tuuti fooye ma kon xanaa rek su ma génne jaare fisee di nga oto mi bëgguma na caaxaan na yëkki ni ma liggéey ma gàntu na tam pourtant maa gën a jabaru jàmb na dama na ma ne ko ndekete da nga daw du ma sa jëkkër nga may tala cuuraay yamal nga rek la sa jamono jabaru jàmb na dama na ma ne ko ndekete da nga daw du ma sa jëkkër curay yaman nga rek la sa jamono jabaru jàmm na dama nopp jabaru jàmm na dama nopp jabaru jàmm na dama nopp maa ne ko dekk te danga dof jabaru jàmm na dama nopp jabaru jàmm na dama na dama ko te danga dof